mbokki démbi réew mi ñu ngi leen di nuyu tey jii ci samedi ji benn fan ci weer juin atum deux mille vingt quatre euh, ci émission yi démbi réew mi di amal di ko wéyal ci réew mi yëpp ñu koy safoo ñu leen di jaajëfal bu baax a baax euh, tey nag dañuy waxtaanaat rek ci mbirum jiw beeg engrais beeg ya ca aaju euh, ci Saloum ci département bu Nioro commune bu Daaru Salaam am na lu fa jotaguma ñëwandeegum lan la ak nu mu toll ñi ngeeg Malick Seck ci ligne bi Malick ñi ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay fay euh, ñoo ngi lay fay kii euh, naka. Abdou Salam Cissé Abdou Salam mhm. ñoo ngi lay fay mhm. euh, nuyu lu bari nag. di la nuyu lu bari. di nuyu képp koo xam ne mi ngi déglu. Mhm. rawatina commune bu Darou Salam. waaw ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp fépp foo xam ne suñu kàddu yegg na fa rek ñu ngi def ñu ngi def ko bu ñu ngi def ñu ngi def mm. ah baax a baax a baax a baax di am kontaan trop ci eh, communication bii may def ak yow. Mm-hmm. jërëjëf Malick euh, dafa mel téléphone bi dafa xaw a am xut xut wala genre écho xaw ma fi nga nekk la déet. waaw waaw xam naa ne boo ko tuuti wala fa nga tëy. waaw non tey wu dara maa ah, ngi ci waaw Malick euh, laaj bu njëkk mooy eh, ci commune Darou Salaam euh, dégg ngeen nañ fa engrais boo xam ne euh, wàcc na fa ndax loole mën nga ñu ci dellusiwaatal comme xibaar nga fàttali ñi it ci kuréel gi yaa ci ñan. waaw waaw commune kii engrais wàcc na ci commune du Darou Salaam depuis démb la commencé woon wàcce. Mm-hmm. démb wàcce woon nañ cinquante deux tonnes mhm. mm, te ji wàcc tey ji aussi wàccee nañ ñaari camion mhm. ñaari camion benn bi cinquante cinq tonnes la mhm. benn bi cinquante deux tonnes yow loo yaa ciy kan yaa ci lan ci kuréel gi ci ci membre yi kuréel gi waaw da kuréel gi dama ci nekk membre nekk ci nekk dama nekk représentant chef du village ah, ah. représenté fa chef yi yow yaa leen jiite

Euh, mu ngi wàcc euh, ci commune bu Daaru Salaam euh, ma yaakaaroon ne balaa ñu naan engrais dañuy wax sax jiwu wala nu mu demee noonu ba engrais bi di njëkk a génn jiwu bi te engrais bi war a dem ci ko jiwu bi mhm. waaw loolu it ndax du luy tardel yëpp waaw man jàpp ma ne jàpp man sama gis gi jàpp ma ne dina tardeel dina tardeel jiwu yi ndax dama gis ne toujours ñun engrais moo daan moo gën a compliqué ci ñun pour mu ñëw. Mm-hmm. ndax tardement bi engrais euh, dafa jëlaan topp ba mois de août. Mm-hmm. ñu indi engrais. Mm-hmm. waaw mois de août ba mois de septembre sax. engrais seddale nañ ko fi man seddale naa ko fi. seddale fi engrais ba ba jamono boobu noonu. Hmm. kon bu ñu commencé mu mu engrais bi jiitu ne la dama yaakaar ne comme li ñuy wax changement moo commencé am. Hmm. waaw changement moo commencé am ak engrais bi ni mu ñëwee. Hmm. ni mu ñëwee gis naa ne ak euh, ni mu daan ñëwee daal moo tax ma jàpp ne soppaliku dina am incha allah. Euh, waaw soppaliku dina am euh, gis nañu ci engrais bi ñu ngi ñëwaat Malick xaaral tuuti ñu ñu jéggalu a baax a baax ci dog-dog boobee. waaye ngi tolloon ci jiw wi nga xam ne nii. Euh, léegi nag buy buy ñëw dañuy gis ne takk deer yi euh, dañ ciy ànd euh, Malick laaj bu bëri ci surtout ci baykat yi mooy ñi nga xam ne ñoom dañ leen daan wax rek jiw jot na jiw yu ñëw na ñu ñëw jël si tey ah. ñuy gis ne dañ leen di gunge ak ay ay alkaati lu hmm. waral loolu lan la ñuy njort ba tax ñu leen di gungeeg loolu lan moo ci daan xew ba ñu leen di gungeeg ñooñu waaw xam nga li ma jàpp moom lañ moom moo moo moo xew mooy dañoo jàpp niñ ko doon doxalee mm. xëy na jaarul yoon. Mm. léegi nag ñu ne dañuy jubal dañuy jubal jubban dañuy jub jubbante xaw ma jubal. waaw waaw léegi na kon loolu bu ñu koy def a ah, wax dëgg yàlla jàpp naa ne foog ay autorité bokk ci bu fekkee ñu fi nekkoon doon def. Mm. mel na ni ñu doon def xëy na euh, am na luñ ci. maanaam lem gi sottandeku bi da daan bëri. waaw non non man mënu maa wax ne. Eh, nappanteem lem bu bëree sottandeku wala du noonu waaw non non non du ma ko li ma jàpp rek mooy gis nañ ne ni gis nañ ñoom nit ñu gisee mooy du ni ñu ko daan doxalee. Mm-hmm. xëy na am na am na lu ci sooxee. Mm-hmm. léegi ñu bëgg koo soppali soppi nag boo koy def moom da ngay soppi rek da ngay seet ni nga jàpp ne boo ko defee. Mm-hmm. mu aw yoon nga def ko. jàpp naa ne bu fekkente ne ñi ngi def dara ay autorité taxaw ci. jàpp naa ne léegi loolu dëngal ci dootu yombati. waaw su fekkee ne ñi ko doon def loolu lañ dëngal yaakaar naa loolu dëngati waaye buñ ci defee nii bi nii ba déwén. Mhm. dinañ xam ni doon def noonu la mhm. mhm. eh, eh, yi daal ñoom taxaw nañ ci wax dëgg taxaw nañ mu dem ci eh, askan wi ci baykat mu dem ci askan wi bien la kay loolu la ndax tey bu bëree bëri euh, tey ji ñu fa nekk yëpp xam ne naa la dama fa xaa dama xaaroon su préfet doon ko lu mu doon def rek te mënuñu foog mu am ñoom lu ko fa teewal. mais ñëw na teew waaw ñëw na après ñëwoon na kay assisté ko daanaka ba mu ba mu pare. Hmm. waaw yàgg yàggaat na fa trop waaw waa jërëjëf. Hmm. yàgg na fa trop daanaka mën naa la wax ne nekk na fa ba mu pare commandant yi tamit noonu. fi mu ne nii engrais bi yëpp mu ngi sur place wala li ngeen jot pareegul yéen a ngi jot pareegul euh, kañ ngeen jàpp euh, àpp séddale bi. waaw xam nga euh, engrais dafa bëri qualité du benn façon. Hmm. jamono bii may wax ak yow 6 mai moom lay wàccaale wàcceewaale commune bu Darou Salaam. Mm-hmm. Euh, liñ ci war a jot tamit ñëwagul lépp waaye am na lu ñuy jot. Mm-hmm. waaw am na lu ñuy jot euh, wax nañ ñu ne sub lundi dinañ indi euh, dinañ indi complément bi muy 6 mai 10 bi. Mm-hmm. waaw tey dégg naa ko ci fournisseur bi mu wax loolu ne lundi. bu ñu xëyee oto tey jii dañoo waroon a wàccee ñetti camion waaye dafa am bu waaw en tout cas daal bi ah? lañ leen di indi li des ci département bu Nioro commune bu daar Salaam rek lañ indeegum wala am na yeneen dëkk yoo xam ne jot nañ seen engrais waaw noonu noonu laa ko déggee nag ñu ne Daaru Salaam rek ñoo wàcceegum. ñoo wàcceegum. démb moom démb moom lool la ñu waxoon ndax tey nag am na ñu ne ñoo wàcceegum ci dara. Mm-hmm. waaye démb daal wax nañ ñu ne nag commune bu Daaru Salaam rek moo wàcceegum Sénégal waxuma département Nioro rek ci Sénégal wax na ñu loolu de. Mm-hmm. Euh, waaw Malick bu bu ñu xoolaan ci carré yi lim li ñuy am euh, ci engrais bi du doy du doy dara. Ah. danay jégg ñu ne engrais bi yomb na waaye dañuy far sax seen kilo kilo yi ñi far bokk booleen te ka ñeneen euh, pour ñoom ñu féetale leen ko ñoom ñi dem seeti leneen wala bii gis nga ne am nga ci yaakaar ne dana yokku ba baykat bi man ci sullox ndiku wa bi yokku ba pare man sama gis-gis man yokku na ba pare parce que man tey jii nii ñun li ñu recevoir li ñu recevoir aale fii commune bu Darou Salam ci six vingt dix hmm. li ñu ci recevoir aale moo su ñoo am lu ko toll aha di wa waaw te te jeexagul hmm. sañ sañu maa wax li ci des nag hmm. waaye jotaale rek moom daan leen jot lu toll noonu. léeg-léeg mosu koo toll de wala man fàttaliku ma ko bàyyi ko. waaw ma Malick dinañ delluwaat ci dina Malick dinañ arrière tuuti eh, ci engrais bi nu mu jiitoo jiw wi waaye mm-hmm. ndax gisuloo ne jiw wi moom itamit tardé mu ngi ciy am buñ toogee ba yii saa gisaguñu ko ñi naan tey ak suba mun na taw. waaw xam nga li ma xam nag moom mooy xam naa ne eh, kii naka la ko jiw wi. Mm-hmm. li ma jàpp mooy notification yi moo yéex a génn. Mm-hmm. waaw notification yi moom ba léegi nii am na dëkk yoo xamante ni notifié guñ ko ken hmm. waaw te jii nii am na benn opérateur bu may waxal moom amaale na ñett dëkk yoo xamante ni notifié nañ ko démb kon. Hmm. kon mel ni démb la affaire yi commencé wadd te bu waddee bu defee ni engrais bi nag comme ni mu ñëwee nii. Hmm. damay jàpp ne mën na bañ a yàgg gerte yi daanaka li ëpp bëri mi sur place. waaw gerte yi moom ak engrais bi duñu benn parce que gerte yi dafa bëri fu mu am. kii dafa am gerte Tamba kii am ko da kii naka am ko noonu waaye engrais boo xoolee benn place lay jógee gerte gi fa saaw bu a fa joge jógee waaw waaw non pas saaw sax waaye tey jii nii comme par exemple le Souleymane Sy opérateur mhm. euh, su waa kay Souleymane Sy opérateur la mhm. yal na gerte Kaymour bàyyi ko fa mhm. amaan nañu jox ko Kaymour wala joxuñ ko Kaymour ñu ne ko jox la Daaru Salaam mise en place rek lay def waaw mise en place rek lay def bokkul ak engrais bi nga xam ne yëpp jàpp naa ne benn usine bi moo koy liggéey nga baal ma li ñu naan ginaar war a nen nen teel a nen nen yéex a nen nen est-ce que wër boo bëri bi tamit euh, du du du ko teel a def rek benn yoon noppal ginnaawam ñi baal ma comme <laughs> ñu koy waxee maanaam bu fekkee loo xam ne ci baykat yi la war a dem euh, jiwu la te xam nga jiwu diggante xolleeg tànn ak feeñ ak xool yaa cay dem ak ya ci du dem est-ce que it gisuloo ne euh, dañ ko war a génne benn yoon rek mu dem ci askan wi teel a ñëw ci ñoom beneen laaj bi it ndax bokkul Euh, ndax gis loolu dañ ko war a teel génnee mu dem ci askan wi maanaam yéex gi ndax génn waaw non teel a génn gi moom moo gën. Hmm. wante boo xoolee situation yi ni mu demee. Hmm. bu yéexee yi a préparé yëpp. mënul hmm. gaaw. mënul gaaw loolu laa jàpp parce que boo ah ñu jotee réew mi ak léegi buñ bëgg a jékki la. dëgg la yaakaar ne mënul gaaw man de loolu sama bopp laa xoolee. te li ci fekkul gerte bi. ah très bien waaw. Ah. Euh, Malick euh, ndax bokk ci euh, baykat yi yi ne ñoom day fab sax jiw wi nañ ko fi est ce que duñ ko fi jëlee rek bàyyi leen engrais ndax bu engrais bi doyee ñoom dinañ xam qualité bi nga xam ne mën nañ ko jël ba denc jiw wala yow bokkula ci ñooñu. non man bokkuma ci ñooñu xam nga am na ñoo xamante ni tey jii nii. Hmm. am na ñoo xamante ne tey jii nii am nañu mën nañ ah denc nañ seen jiw mais am na ñoo xam ne gerte gi la ñu xaar pour ji ko. Hmm. léegi su ma ne d'accord ma ci loolu noonu. Hmm. kon maa ngi handicapé ñi nga xamante ni ñu ngi toog di xaar gerte gi. waaw dama jàpp ne ku uh, kuy laaj ak kuy joxe jiw ku nekk kuy joxe engrais ku nekk da ngaa war a jiital joxe jiw man sama gis-gis laa wax de d'accord naa ci joxe jiw bi man waaw te dama foog ne état mën na joxe jiw mu uh, doy mën na joxe engrais mu doy waaw loolu laa jàpp man baykat yi nga xam ne baykat yi nga xam ne baykat yi nga xam ne wala opérateur yi nga xam ne uh, yore nañ seen xaalis fan yi ñu dégg ñu ne état bee daf leen yore xaalis nguur gi bi mu ñëwee ñi ne fay nañ leen Euh, lan nga gis ne moo ci nara nekk njëriñu ki nga xam ne moom baykat la. waaw béykat bi am nañ ci njëriñ hmm. ndax léegi bu fekkente ne ñi nga xamante ne état bi daf leen amoon dem nañ ba ñoom ñu wax ne hmm. ñoom mënatuñoo joxe jiw hmm. te état bi moom du joxe jiw état moom dañ koy joxeel jiw mu fay su demee ba ñoom ñu ne mënatuñoo joxe jiw ndax dañ leen amel ay bor bor yooyu ñu fay leen ko ñu mën a indiwaat jiw kon loolu am nga neen la di loolu nga la bu fekkonte ne tey jii dama jàpp ne ki taxaw ne buñ ma fay mënu maa indiwaat jiw loolu wax na dëgg suñ ko fayee mu indi jiw kon condition yi waxoon remplir na ko. ah. ma ne ah déggoo ma. waaw waaw waaw ñëwaat ma ne. Hmm. tey eh, opérateur bi ne buñ ma fay mënu maa joxe waat jiwu mënu maa leblewaat. Euh, ñu fay ko. Hmm. mu leblewaat ma ne kon remplir na condition yi mu waxoon moom. dëgg la waaw. Mhm. te wala moo laan wax mu ne bor am rakk bor du am rakk dëgg la waaw loolu yàgg naa koy dégg léegi nag kon état bu fekkente ne góorgóorlu na ci mhm. ba fay leen wala avance na ne dégg naa fay dégg naa fay dégg naa avance mhm. mais man avance bi nag laa gëm man waaw euh, ba tey mbokk yi ñi leen di fàttali ne yéen a ngi déglu ci démbi réew mi Abdou Salam di ci ànd ak Malick sekk euh, nekk it baykat mën nañ ko tuddee baykat baykat la waaw ci département bu Nioro euh, Malick gis nañ de ci mbay mi kuréel yi dafa bari lool ay bànqaas bànqaas yi nan lañ mën a def ba boole kuréel yëpp def ko muy benn baykat ci kii baykat dëgg di ci wax ñi ci xàccandoo di ci dóorandoo loolu it nan lañ mën a def ba mu am yan kuréel kuréel yi dañuy bëri comme maanaam pacc pàcc yi. mooy. ñiy ñiy wax ci turu baykat yi. waaw léegi ndax mën nañuy bootu ci genn kuréel gu mel ni CNCR. ñu organiser nan la ñuy joxe jiw wi opérateur yi tamit ñu waxtaan lépp ñu def ko muy benn wala gisoo ci ñaar. waaw loolu moom du euh, loolu moom bu ko baykat yi mënoon a organiser. Mm-hmm. konoon lii ñoo ko yoreel seen bopp. Mm-hmm. konoon. Mm. lii ñoo ko yoreel seen bopp ndax boo xoolee yeneen yeneen kii yëpp ñoom ñoo ko yoreel seen bopp mm. béykat yi rek ngay dégg ñu ngi leen a jox ñu ngi leen a jox mm-hmm. mm-hmm. ñu naan ci ay ay mm-hmm. ay ay commandant ak ay nangam nangam léegi bu fekkoon ne béykat a yoreel seen bopp seen lii nii tey jii nii tey jii euh, ne bu fekkoon ne kii la naka lañ ko wax di euh, jàngalekat yeeg lii yi dama jàpp ne ñoom ñoo mën a gut leen bëgg a def ak loolu de la bopp ñoo waaye xëy na euh, ñoo ngi ci yoon bi nag Pape am na matériel bu bari boo xam ne gis nañ ko de ñu koy wane ci sunuy bët ci image yi ne ci baykat yi la jëm muy wàllu tracteur ak yu ñu mel yi xàlla xàlla beeg yooyu ngir ñu mën a bay loolee nan nga jàpp ne yow séddale bi noonu la waroon a demee ba baykat yi war ci jot war ci jot séddale bi hmm. nan lañ war a mën a defee séddale bi ba mu yegg ci baykat yi ki ci gën a suufee ba ci ki digg dóomee ba ci ki ci kaw waaw xam nga matériel yi moom dañoo bëri te bëri façon. Mm-hmm. tey jii ne am na boo xamante ne tey jii nii comme tracteur mel ni tracteur wala yii nii. Mm-hmm. tracteur euh, euh, xanaa état bi yombal ko lool rek waaye su ko defee lu tamit béykat boo xamante ne euh, am na capacité jënd ko xam nga tey jii man mën naa am xaalis mën a jënd tracteur waaye du ma am ay toolam te léegi tracteur bi ñëpp am tracteur ñu lebal la ko tracteur liggéeyam du bëri noonu. Mm-hmm. waaw tracteur liggéeyam du bari noonu tracteur yi moom baax na bu dee matériel bu sew bi nag moom nu mu gën a baax ndax te jii ne machine bi fi nekkoon bu yàggoon machine moo xam ne man mii di wax ak yow moom a xëy na wala wala mu bari machine yi ñu téye moo ñoo leen mag. Mm-hmm. waaw xam naa ne loolu dem na ci tëgg yi damaa ci tëgg yi kii dinañ lamp euh, dinañ kii yooyu yëpp bu fekkoon ne de matériel bu bees ñëw. Mm-hmm. yaakaar naa ne dina gën a baax ci baykat yi te ñu mm-hmm. yombal ko. yombal ko ba mu jegee ci ku mel ni man néew doole. su bëggee pouvoir bëgg wuusin man koo am. wala mu bëgg ñaar man koo jënd ci xaalisam dem di ko liggéey loolu moom dina baax. jërëjëf waaw loolu moom dina baax lool lool lool lool mais nag bi foog mu def ci yombal foog mu def ci yombal ndax tey tey jii am na koo xamante ne nii danañ dem ñu nga commencé du am du am capacité gend ko mm-hmm. waaw ndax jamono bii nii tey jii am na béykat yu bëri boo koo ci génne cent mille franc mm-hmm. yaa ngi dégg ñu jox la machine mm-hmm. nga war a dem jëndi engrais wala jëndi jiwo tey maanaam loo ci mën a dégg mayewuñ ci dara dañ koy jaay dëgg la dëgg la waaw koy jaay yombal na léegi nag bu fekkee ne nga manqué li yu bëri ñu indi la ko di la ko jaay bu seeree rek amaan na njëg lu yomb. jërëjëf Malick. waaw eh, amaan na naa ne dinañ dellusiwaat ak yow sëñ Malick. jërëjëf am nañ mbégte lool àndoon ak yow tey nii ci waxtaan bi. bu soobee mhm. yàlla dinañ dellusiwaat ak yow. incha eh, allah ñi gën a yeggaliwaat. ñu ngi lay mhm. jaajëfal bu baax. am mbégte ci leeral yi nga xam ne def nga ko. jërëjëf looy jërëjëf Souleymane Abdou Salam Abdou Salam jërëjëf ñii gërëm bu baax a baax sunu réalisateur sunu monteur Omar Cissé Nika Omar Touré Nika jërëjëf Mm-hmm. waaw am nañ mbégte lool ci déggante gi mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla comme ci réew mi laa bokk mm-hmm. ci réew mi laa bokk am lu ma xam ñu laaj ma ci ma wax ci lu ma ci xam bu ma ci juumee ngeen jéggal ma nag jërëjëf merci waaw jubal rek laa ci bëggoon su fekkee wax naa ci lu dowul noonu it ñu koy déglu yëpp ñoom nañ ko rafetal ñu xam ne mu rafet rek laa ci jublu woon jërëjëf bu dara mu ñaaw wax dëgg yàlla merci beaucoup asalaamaaleykum ci ñaaw nekk yéen a ma koy rafetalal am na solo jërëjëf jërëjëf Seck ñëbbala nga daw réer yi maru dallu waaw <laughs> ok jërëjëf <laughs> ok mbokki démbi réew mi ñu ngi